mbokk yi fii nii Ségub Yoff la maanaam cimetière Yoff ñu ko fi euh, ñu ko xamut a euh, bariwut dañu ñëwoon fii nag euh, tey euh, gannaaw coronavirus bi mu installé wu ci Sénégal depuis weeru mars 2020 léegi mu mat at léegi nag euh, chaque saa su nekk dañuy xëy dégg ab décès wala ay décès yoo xamante ni coronavirus moo leen di yóbbu loolu sabab nag ñu ñëw fii ah, di xool ñi nga xamante ni ñooy gérer li nga xamante ni mooy cimetière bi di Ségub Yoff di leen ndax nit ñu faral di suul par jour par rapport ak jamono bi xamante ne amul woon coronavirus ak euh, coronavirus bi mu amee ndax lim bi yokk na lool bu dee yokk euh, yan euh, fara ban tranche dage lañ fi suul mais également yan genre maanaam ay góor wala jigéen la ñuy gën a suul waaye tamit chiffres yi ndax mun nañ ci am benn comparaison bi nga xamante ne war nañ ko mën a am ci année 2020 ak année précédente yi maanaam 2019 ak 2018 buñ ko mënee am waay tamit ñu koy laaj ah, ndax journée yi ñu faral di suul par jour eh, yokk na ah, bu baax a baax ndaxte tamit ñoo ngi déclaré saa su nekk nit bu fi ñëwee eh, kii coronavirus moo ko rey wala kële eh, coronavirus rey ko waaye tamit yan disposition fii ni xamante ni jël nañ ko ñoom ah, gérant yi ndaxte wallante bi mu ngi am fépp te fii chaque jour nit ñi day ñëw fii di suul seen seen i mboq di suul seen i ah, nit yoo xamante ne dañuy ah, ah, décédé léegi nag dañuy dugg léegi gisante ki nga xamante ne mooy le gérant bi nga xamante ne mooy enregistré nit ñi nga xamante ne dañuy faatu fii balaa ñu leen di suul dañuy sëkk laaj ay ak i tontu. maa ngi di jaajëfal di leen ziar euh, di leen xamal tamit ni dafa am changement quand par rapport ak yeneen yeneen ñaari at yi passé nii ak yeneen année yi passé on a on a constaté que dafa am euh, benn évolution hmm, ci taux de mortalité bi dafa gën a yokku par rapport euh, suñu mu jëlee exemple mooy ba deux mille dix huit deux mille dix neuf enterrement yi euh, normal ay une dizaine la par jour dañ doon am dix onze enterrement douze yooyu maximum. par contre bu virus bi installé wu suñu dëkk suñu réew ba léegi deux mille vingt avril deux ba léegi daal euh, première vague bi xawoon na tane sax parce que euh, dañ doon dem une euh, quinzaine waaw ci biir kii bi première bi mais deuxième vague bi par contre on est à une vingtaine d'enterrements d'inhumation par jour ah du coup su fekkee dañ ko bëgg dañu bëgg a def rapprochement bi entre kii bu euh, normal bi ak léegi ak virus bi mu installé bon donc on dirait que dina euh, virus bi la man je ne peux pas me le permettre parce que je suis pas spécialiste en la matière mais je constate malheureusement que effectivement virus bi deuxième vague bi ñëwee ba léegi ko en termes dafa bëgg yokk. Euh, tranche d'âge bi jeunes yi bëri na ah jeunes yi bëri na parce que bon xam nga mag yi sax soo seetee quatre vingt soixante dix ans yooyu léegi pour nga gis ko c'est c'est un peu difficile lu may loolu même temps normal ah bi avant corona bi euh, su ma mënu ma ne ni mag yooyu jeex mais euh, jeunes yi tamit taux bi jeune entre jeune ak kii c'est c'est rapport bi amul amul tellement différence ah c'est surtout les jeunes qui ñoo ñoo gën a kii quoi. non ça a doublé forcément bu <laughs> euh, ñu ma ne suñu doon am dix ñu ngi am vingt c'est que veut dire que le soo le calcul c'est vite fait c'est c'est c'est le double c'est que supposons soo doon am euh, trois mille quatre mille ci année yi passée tu as tu as le double tu as six mille ah. bi muy doog a installé wu amoon na changement bu wóor bu leer sax dañu doon euh, ñuy corona bi ñu bi doon euh, ñu ñu doon indi ci corona bi boobu dañu man daanoon naa xam ni telle telle personne est décédée de coronavirus n'est-ce pas mais léegi je peux pas faire la distinction malheureusement parce que bu njëkk dañu doon indi service d'hygiène fa la ñëw euh, sapeur pompier hmm? dañu doon indi ñoo doon indi corps yi ñu gaañu ci coronavirus mais par présentement c'est pas ce qui se passe ah ñii les parents seen bopp ñooy indi ñoo indi koor bon lu ma jàngat ma ci xam naa ni au niveau des morgues euh, toilettage moom amul problème te këpp ku gaañu ci coronavirus këpp ku gaañu ci coronavirus ñoom di dinañu jënd euh, sapeur pompier kii service d'hygiène ñoo leen di sàng ñoo defar di defar jël ay seen matukaay jël seen disposition euh, désinfecté def lépp. ba pare def ko ci ay kii envoyé ak kii ah, peut-être que mënuñu toog mënuñu continuer di di indi corps yi mais léegi mais je sais que dinañ ko lu ci war yëpp emballage bi yëpp dinañ ko defar correctement après doo ko jox si jëbal seen ki mbokk pour ñooñu mun ko indi. boo doon di espace bi amatul espace am na ba léegi. Mm. <laughs> bon mais cimetière tamit euh, dafay fees il faut cimetière cimetière de 74 la premier mai 1974 dañ ko tijji. faites le calcul c'est c'est c'est mine de rien c'est quoi c'est 46 ans 47 ans Hmm? alors <laughs> kon ba léegi feesoo c'est parce qu'on a essayé de maximiser le maxi le plus le kii euh, le mieux possible mais sinon ak duñ ko rationaliser moo tax ba ñu toll fi nga xam ne kii mais cimetière il faut mu fees su mu jëm fees na personne yàgg ñaata at la durée ba mu fees il faut évolution et puis bu njëkk lu ñu doon am lu ñu doon am ci ay décès en 74 ba 80 ak yooyu bokkatul parce que on était à quoi combien d' euh, de millions d' habitants léegi on est forcément euh, taux bi dafay gën a yokku parce que ñu ñuy gën a bëri muy gën taux bi gën a yokku bu njëkk bon man quand su ma su ma xoolee si sama registre yi ma fi fekk yi ma fi fekk ay 74 je vois un enterrement deux par jour maximum dañuy ñu tëg benn jour duñu am enterrement léegi c'est c'est pas le cas avant euh, euh, avant kii le corona kii euh, la ko kii nu mu tëddi la Covid bi avant Covid bi dañu doon am ay comme la ko waxee ci njëlbeen bi dafa ñu am ay dix onze yooyu mais léegi ñu on est à vingt forcément il faut que kii bi tendance bi day nekk à la hausse bon léegi. quant à que mu ngi fees non je ne peux pas bon pour le moment moi je peux dire que mën nañ demaat ba ay. une dizaine d'années vous me direz que dix ans c'est rien du tout et c'est vrai te pour concernant les autres cimetières je veux pas mettre euh, la charrue avant les bœufs kooku y a des y a l'État qui s'en occupe yu ngi occupé beneen euh, cimetière mënuma wax ba du ma leen wax nag fan la ak lan la mais je sais que ñu ngi ci et puis ça les travaux avancent vraiment euh, ce que lu ma lu may déplorer c'est le port du masque et les dis euh, les mesures barrières ñu jëlatuñu ko franchement man loolu rek lay déplorer mooy yaa ngi doon ndax ñu ngi jël ay mesures ñun on exposé et vraiment exposé nit ñi lañuy ñëw bu njëkk bu ñuy buy corona di doog a am dañu doon ne ay vingt dix personnes ñoo doon accompagner les les morts léegi ce n'est plus le cas ce n'est pas le cas c'est une centaine voire deux cents personnes qui viennent pour prière mortuaire bi fii la ñuy jullee fii ci suuf ci euh, kii bi devanture u bi mais c'est 200 personnes qui qui, qui viennent pour pour la, euh, la prière mortuaire et deux 200 autres wala 100 autres yu yuy dugg pour kii te duñu ci bëri soo jëlee 20 personnes tu as que 4 wala 5 personnes yu sol masque on a ce problème là te su ñuy wax euh, euh, nu mu tëddi ku ñëw euh, lu gardien lu ñuy wax mooy maanaam ñu bañ a dugg ku amul masque du dugg mais duñ defaale sax day ñëw force passage bi dem. te donc doo fi nekk tam ci buntu cimetière nit ki deele nga ne ko yow doo dugg amul du bon sens nañu dimbale rek euh, dimbale ñu dimbale seen bopp dimbale seen waajur ak seen mbokk ak seen askan ñu respecté yooyu ah c'est moi je peux comprendre mais dans les cas ñu ngi def leneen mais soo ñëwee ba ci buntu armeel quand même y a un minimum de respect voilà mbokk yi gannaaw bu ñu duggee ci biir gis ki nga xamante ni mooy euh, gérant Asegub euh, Yoff fii euh, gannaaw bu ñu toogee ak moom waxtaan ak moom lu bëri moom nag wax na lu am ama solo moom avoué na ni nangu na ni atub 2020 su lañ fi ay nit yu bëree bëri bëri ma ëpp ci bu ñu ko defee comparaison ci atub 2019 la atub 2020 moom leen sax dafa doublé parce que ci at yu passé yi bu dee 10 la ñun suul par jour wala 15 quinze léegi vingt la ñuy suul wala lëkk ko ëpp euh, donc atum 2020 bi vraiment décès yokku na waaye tamit moom nangul euh, avoué carrément ni euh, coronavirus bi moo saba waaye li mu mën a wax rek mooy vraiment yokku na bu baax a baax bu ñu def à comparaison ci yeneen at yi ñu daan suul fii ci atu 2019 bi ak atu 2020 daanaka atu 2020 bi da ko doublé waaye tamit jot na joxe comme information que ni euh, xale yi bu baax a baax ñoo ngi ñu xale transgenre boobu xale yi xamante ni ñoom la ñuy gën a suul fi par rapport a euh, mag ñi waaye tamit dafa mel ni tamit góor ñi euh, la ñuy faral di suul lu ci li ci bëri par rapport ak jigéen ñi moom nag bu fekkente ni am na lu muy lancé comme comme alerte wala comme lu mu bëgg mooy nit ñi dañuy nekk si coronavirus bu ñu Yoff ñu euh, respecter les mesures barrières ñu respecter xamante ni docteurs yi wax nañ ko ñu takk seen masque parce que euh, ku ñëw euh, ku ñëw fii defoo benn mesure defoo benn mesure barrière ba gardien bi mënu laa teree dugg parce que ku andi sa néew kenn mënu laa teree dugg dafay nekk lu xaw a compliqué moom nag foofu la jaar di lancer boobule appel ngir nit ñi daal di gën a yokk nekk ci mbas mi mu defal def mesure barrière bu baax a baax ngir ñu bañ leen wàll waaye tamit ñu bañ a wàllante parce que fii ñëpp fii daje par jour donc ay centaine centaine nit ñoo fii ñëw par jour donc euh, bu wàllante bi amee day gën a euh, bañ day gën a euh, naqari day pour mu ñu gérer ko dafay nekk lu lu méttee méttee voilà mbokk yi li mu nekkoon li ñu andiloon tey ci journée bi